aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan ci sunu sit bi ñuy wax 24 euh, actu ñu ànd ak yéen si émission buñ fii am boo xamante ni dañ ci def émission taxaw seetlu la ñuy ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal bu baax a baax Serigne Abdul Fatah Mbacke ibnu Cheikh Modou Fadal suñu borom may ko fan wu gudd ak wér di ñaanal bu baax baax Serigne Dame Atta Mbacke Cheikh Ibrahima di ñaan yàlla mayel na ko fan wu gudd lool ak wér ba mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu defe ko na mu soole soobe di siyaare kilifa diine yëpp kilifa waa tey de sunu émission taxaw seetlu dafa am ci fan yi coow yu bari yu fi am yoo xamante ni wala ay wax yu bari yoo xamante ni dafa jëm ci Sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir ñu ci bari e, jàngat ko ñii tontu ci ñële indi ci ay yeneen i wax yooyu nag ci leen bëgg a taxaw seetlu tuuti benn fin ciy njëkk de mooy as gor tuuma lan koy tuuma yàgg na ci tegu ci loosu as gor euh, loola nag dafa am lu muy taxawe ci as gor gor su xam boppam tuuma boo ko tuumaalee mu toog yanu tuuma ja ne cell yow mu suturaal la wala yow mu toog bañ caa wax dara loolu tekkiwul ne li nga ko waxal day dëgg tekkiwul ne tamit dafa bañ a dindee ko tuuma waaye ginnaaw xam na ne moom xam na boppam yàlla mi ko bind xam na ko yow mi waxit xam nga sa bopp kon daanaka ñi ci des jarunoo leeral ndax du ko jar bokk na ci fi mu taxawee tamit ku xam sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir te xam ne lii ñuy wax ñun dëgg rek lañ bëgg a wax ak yàlla rek tax ñuy wax amul dara dara dara lu nekk suñu ginnaaw lu dul bëgg a leeral rek loolu liñ ciy leeral mooy ku ko xam xam ne li muy jànkoonteel ci lii ñu ko jox muy kàddu yoonu Sëriñ Tuubaa ak li muy jànkoonteel ci liggéey bi bu fekkul xamut woon ki muy liggéeyal muy Sëriñ xam ne moom rek moo ko mën a fay te moom rek lay liggéeyal kon ba léegi metti na ci moom kon ba léegi yoo xamal na waaye xam na ne ki muy liggéeyal ku ko liggéeyal mu fay la te it xam na ni itam ki muy liggéeyal ku jar a liggéeyal la moo tax mu concentré wu ci bu ko defee mënul waxtu wu nekk luñ ko tuumaal mu taxaw rek weddi ko wala luñ ko waxal jàpp naa ne tey ëllëg yomal xiyaam bu nu fa taxawee ñu ne ku mas a yëkkati kàddu jëmale ko ci seex seex Basiru Mbàkke da nga taxaw fii ci wetam te bu boobaa loolu dina leerit incha allahu rabbi dina am képp ku mas a yëkkati kàddu yaa xam ku rafet la wala gu ñaaw wala goo ko tuumaal teg ko ëllëg danga nga taxaw moom loola nag jàpp naa ne foofa dong loola rek war na ko doy na doy na lijjanti ci moom ndax xam naa ne ku mën a taxaw waat sa diggante ak sa borom vérifier ni mosumaa teg kàddu ci moom benn muy kàddu gu rafet wala gu ñaaw loolu néew na ñu ko deful loola nag daf ciy sant yàlla ndax moom bu demee ba nit ñi di ittewoo ay mbiram di ci wax ittewoo la muy def ca lu baax ñu koy wax ñenn ñi iñaane ko ba di wax ci lu bon ci moom loola day sant yàlla rek day jël lii muñe ko lii li ko ñu baax ñi di waxal di ay nawleem wala di ay gor di ko wax ci moom loola da koy muñee ña nga xam ne du ñuy nawleem tey wax ci moom lu jaaduwul loola daf koy muñ sëriñ Saaliw Mbàkke mi nga xam ne waajuram la de dafa waxoon ne bu fekkee ne am kun ko kalaamel ne ko war ngaa génn de wax ndax moom de wax de yàlla lim lay waxal rëy na te bari na lool mu ne ah mënuma fu mu waxee rek ma daal di jël rajo bi tontu te bu ma tontoo tey bu ëllëgee tontuwuma ñu ne kon la mu wax dëgg la kon damay bàyyi rek waaye sëriñ Basiiru Mbàkke mu Sëriñ Abdou mënul képp képp ku wax ci moom lu rafet sax mu tontu la waxantuma laa ku wax lu ñaaw wala ku koy tuumaal segam ñi koy waxal lu rafet la mënta fexe ba delloo leen njukkal loolu sax wala mu tontu leen segam loola la amut jotam iskama li nga xam ne dañ ko koy tuumaal te dara du ci dëgg benn bi ma bëgg a wax danoo wax ne fii dañ koo tudd ci mbir sàngam loola koy laaj bi Sénégal yi yëpp war a laaj mooy ki ko wax na indi ay prof yu leer mooy na indi ay document wala mu wax ne nangam wala mu leeral wala mu wax ne nangam ba ñëpp xam ne li mu wax lu leer la waaye tudd nañ mbir sàngam ci diw sàngam tudd nañ suuf ci sëriñ bi tudd nañ ko ci suuf sàngam loola rek wax dëgg yàlla sëñ Cheikh Bass euh, jombante na ci ak di ci tontonte ak it bu fekkoon na dem na ba ciy tontu wala mu ciy génn di leeral loola day fekk ne ña ko ko ñanu jàpp ne ñooy euh, sunuy homme d'état wala ñooy ñi nga xam ne ñoo ñooy joxe loola ñoo ko ci tudd bu boobaa dana génn leeral ne nangam waaye ginnaaw ñooñu waxuñu ko ab benn waay boo xamante ni ab journaliste la xañ na moo ko wax te waxi journaliste yi du yëpp du ñëpp sax la seeni wax du lépp la ñuy jàpp waxantuma la ak waxi journaliste yi nga xam ne gis nañ ne waxtu wu nekk ñu wax loo xamante ni boo demee ba vérifier ko da ngay xam ne lii wax dëgg yàlla wérul segam nag li nga xam ne nag moom nga moom nga mën a vérifier ba mu leer nga xam ne lii ñu wax wérul waxantuma naa xabaar ban lay joxe ci beneen réew wala ñu la koy joxe ci beneen nit te mënoo koo vérifier sagam yi nga mën yi nga mën a vérifier yooyu danga koy vérifier gis ne wérul waxantuma la yi nga mënta vérifier kon li ngay def mooy nga celleeral rawatina nag mu jombante nag di waxante kooku nga xam ne moom mooy wax wax jooju te kooku du moom rek la ko fi waxal waxal na ay nit ñu bare bare bari fi Serigne Cheikh Bass nekk ak kàddu gi mu yor yaakaar naa ne lu ko waaye mën a wax ci kàddu goo xamante ni dafa jëm ci moom jëm ci jëmmam muy lu rafet ak lu ñaaw bu dee lu ñaaw. jéggal na ña nga xam ne wax nañ ko ko ndax jombante naag di ko tontu bu doon kàddu goo xam ne dañ koo jëmale bokk ci sëriñ bi kàddu gi mu yor ki mu yoral kàddu muy sëriñ bi boobaa dana génn leeral ca wax ja te jàpp naa ne moom lu ko waaye mën a wax rek ngir jëmmi sëriñ Tuubaa mën na laa jéggal sëriñ bi daal lay liggéeyal xañ na ku waxoon ci sëriñ ba bu boobaa mën naa génn te am nañu cay wax ñu doye di ñoo xamante nii loola sa jëralu ko génn waaye bu ca ku wax ku jar tontu waxee bu boobaa dana génn benn bi ci des mooy dañuy wax ne war na génn wala mu génn aw kaam loolu wax naa ne jëru ko yow koy ki tuumaal diw sàngam kooku moo war a indi ay preuve ne diw sàngam bërki démb dégg nañ fii ku wax ne diw sàngam walla famille Fraisse walla nangam nee na jox nañ leen nangam jële nañ fa nangam waa famille boobu defuñu plainte wala boog ginnaaw bi waaye ñoom génnunu di leeral ñoom génnunu defuñu dara te teewut ba mu ko waxee dañ ko jël si ñooñu koy nan jël si waa ji ne ko yow li nga waxal diw sàngam fan nga ko teg sëñ Cheikh Bass moo jàpp naa ne ci àdduna ak fi ko yàlla teg ci ñaari daraja yi mu am muy ab yaaram la doomi yaaram la ku ko xam-xam ne loolu la garmi la ci lii nu ko dénk tamit boobu ba léegi ni muy jëflanteeg nitu nguur yeeg nitu àdduna yi te ba léegi kenn mënu koo sërxal intervention sa wala ñaan leen dara sax loo xamante ni day jëm ci ñoom sax du ko def ku ku mën a xam sëriñ Cheikh Bassirou di nga xam ne ci yàlla mën a waat ci yàlla ne tàllalul loxoom ñaan kenn dara lu ko nit mën a jox da ngaa dikk fekk jox ko waaye tàllal loxoom di ko ñaan loolu jombante na ak moom xam na li ko sëñ Touba buy demee bay tàllal loxo ki muy tàllal loxo muy yàlla ak sëriñ Touba mi nga xam ne mooy liggéey te sëñ Abdou Lahad waajuram dafa waxoon ne yoon wi su fekkoon am na mbañ mooy tàllal ku dul yàlla sa loxo te def ñaan leen ne leen kii defal leen ma ko nangam sax du ko def ndax xam na ne kum ci ñaan tey na la defal ma nangam ci diw sàngam wala defal ma nangam bu ëllëgee da ko ñaan ci yoon wi loo xam ne du la ko mën a may te kon ab ànd dañ ne lees man ak gàntulees mënul moo koy yàq moo tax loolu du ko def benn bi ci des ñi wax ne euh, dafa war a euh, ñoom danoo war a war dafa war a génne prof danoo war a leeral leeral bi koy paasewul nit ki moom fa ñuy leerale fu nekk xam nañ ko ki bëgg lu leer ba tax mu génn ne nangam am na <coughs> kooko nan na wane preuve wala yéen ñi nga xam ne danga ngeen génnaat ne moom dafa war a génn am na génn fii ci dëkk beeg ci biti dëkk beeg ñëpp ne Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dafa war a génn leeral wala mu woo awakaam mu leeral wala nangam déedéet moom waxul dara ki ko waxal kay kooku ngeen war a laaj ne ko yow li nga wax dafa leeru da nga ne tudd nañ ko ci rek wala nangam yow ko yaa war a indi preuve yow la ñuy laaj ndax li nga wax foo ko teg ndax ku nu may loola wala ñu jox la ko danañ la indil ay këyit wala danañ la wax ne la nangam kooko kay ngeen war a laaj mu leeral moom koy jéemuta leeral dara te du toppante kenn même bu leeroon ba mu xam ne lii mu ko waxal ñëpp xam na ne du dëgg waaye yàgg-yàgg sëñ Basiru du ko porte mukk loolu jombante nag fi ko yàlla fi ko yàlla teg fi ko sëñ jombante nag muy yóbbu kenn di ko fitnaal kookee nga xam ne moo ko def loolu wala moo ko waxal wax ji nga xam ne ñëpp teg nañ seen benn ne du dëgg bu ko gisoon li mu séq ak moom mooy teraanga ndax loolu la ko sëriñ loolu la doon ne ci sëñ Touba loolu la doon ne ci ay waajuram kenn ku mën a dem ba yëngal ko ba gis meram ci moom li ñuy wax ne eh, nit la koo xamante ni eh, koo xamante ni li sëñ tubaa waxoon sëñ Moussa Ka waxoon sëñ tubaa mooy dafa waxoon sëñ Touba ne ko di safoo ku ko soof lu dul kuy muy boroomam sëriñ bi. sëñ Seex Basiir ñi ko xam di nga gis koo xam ne da koy ab noonu la bu mu xamal boppam ci boppam waaye teewut la mu koy may ci boppam kenn xamul nu muy toll ndax li moom yow li nga ko lebal loolu rek nga am moom lim lay fay loolu la am yow ñàkk aw yiwu ak yéene ko safaan loolu nga am loolu nga ko yéene moom mu yéene la jàmm li nga ko yéene nga koy jox li lim la yéene la lay jox li ñuy wax ne biteel bi te xel li mukk lu nekkut ci moom moom loolu rek moo nekk ci moom loolu la doon ci ay waajuram lii mu yor di kàddug murit ku nekk xam na ne fi lim ciy daj ak coono bi mu ciy daj ak lim ciy def lim ciy daj ci coono kenn xamul nu mu toll waaye lim ciy def néew na ku ko man te ñépp a ko ko mën a seereel ndax loolu doonul mu baalaxa doonul di wax ne nangam lim ciy liggéeyal sëñ Tuubaa néew na ku ko ci man lim ciy dajit néew na ku ko ci mën a daj xam say noonu xam ñi lay sosol xam ñi la bañ ba noppi nga yéene leen aw loolu yaaram a ko man te loolu donn na ko ci Cheikh Abdou Khadir donn na ko fi mu kon kon nag mbokk yi li nuy wax mooy sëriñ bi moom du génn mukk mukk mukk di leeral même bu xamoon ne maanaam gàcce googu mu teg ko diw di sàngam sax leeral ko ba mu xam ne kii li mu doon wax du dëgg loolu rus na ko moom jomb na ko waajooju doon wax kay mooy dem ba jamono mu xam ne li mu doon wax du dëgg bu boobaa yéen ñi doon bëgg lu leer ngeen dem ba xam ne du dëgg bu boobaa mu leere feneen waaye du leere ci moom kon mbokk yi moom lii mu yor ci ak kàddu ak nii ko yàlla bind ak teraanga ji ko yàlla defal jombante naa nag muy suufe bay topp ndoo nag ñenn di wàcce boppam ba ci suuf moom ku nekk ca kaw da koy fekk ca kaw mu ànd ak yow ci kaw waaye suufe bay wàcce boppam nag di deltu ginnaaw loolu moom du yàlla jombante naag li ko yàlla defal ak li ko sëñ Tuubaa defal kon li nu war a xam mooy du génn mukk du leeral loolu jar daray àdduna jaralu ko génn di leeral jaralu ko la ko doon jaral daal mooy ñen ne wax ne ñooy joxe mbir ma ñu dikkoon ne ko yow kat jox nañ la nangam ci mbir ma loola bu boobaa jar na moom dina génn leeral ndax ñooña lay tollool ab niveau ci war a leeral waaye ab journaliste rek boo xam ne dafa dikk rek wax boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wax loo xamante ni la muy wax lu bare bare dañ koy topp du dëgg gis ngeen ko fii ba tàyyi mu taxaw waa diw sàngam wala baalo wane na dafa juum wala mu wane na la mu waxoon du dëgg kooku nag wax dëgg yàlla mënu waxtu wu nekk nga topp ci moom rek di ko waneel ne ko li ngay wax du dëgg comme moom mën naa dund ci loolu mën naa regg ci loolu ci lay dund ci lay lekk ñu bàyyi ko rek ëllëg yomal xayaam lépp dana leer te foofa lan gën a soxlaa leeral ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu